dañ koy jëmmalee ci wàllu néegu sëy yi ndax dëgg-dëgg sëy lu am solo ci societé bi mooy tax àdduna di dund mooy taxit dimbalante ak yërmande di am ndax mbokkoo mënul am te sëy amut Euh, lu mel noonu ci la diine di taxawe ci la lépp lu baax di taxawe kon nag su yàqoo rek àddina mën na yàqu su defaroo lépp mën na cee jaaree defaru mu nekk loo xam ne dëgg-dëgg képp kuy laayante biir ak mbokki jullit yi war nga di waxtaan ci côté boobu sëy te nag ci lañ bëgg a ñëw waxtaan ci ci ñaari façon façon bu njëkk bi mooy leeral yi nga xam ne mooy tax sëy bi mën a dem moo koy téye ba du am problème du yàqu ñaareel ba mooy leeral naka lañ war a tànnee soxna ak naka lañ war a tànnee borom kër ak lan moo mën a juddoo ci tànnin yooyu yooyu lañ bëggoon a waxtaan ak yéen ngir laayante biir ak mbokki jullit yi ndax diine du dara lu mooy di waxtaan ak nit ñi ci lu leen jariñ ñu ngi ci jamono joo xam ne nii sëy yi am problème dafa bari lool fa may njëkkee mooy naka lañu war a tànne ndax sëy balaa dem dañ koy takk ba pare moom laa mujj tudd waaye moom laa njëkk a wax yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moo gën a xam ñëpp te ay waxam saa yuñ ko teggee rek gis ko gis li taxoon mu aaye ñu suñu aayee saa yuñ ko defee rek danañ gis li tax yonentu aaye woon ñu diggalee ñu ba ko it danañ dem ba xam lan moo taxoon mu digal ay waxam ku ko teggi doo am ndam yonent bi dafa tànnloo góor tànnloo jigéen mu ne góor ñi am na ñoo xam ne la leen tax a takk soxna mooy jigéen ji dafa am alal wala yaakaar nañ ci moom alal yonentu ne boo tànnee jigéen ngir alalam perte nga ba solo loxo takk takk suuf maanaam bis dina ñëw nga yëg ne ndeke yow yaakaar gu tas rek ci ngay mujj yonentu ne am na ñoo xam ne taar moo leen dugal ci jigéen mu ne boo tànnee jigéen ndax taaram perte nga ba sa loxo takk suuf maanaam bis dina ñëw nga yëg ne dëgg dëgg ndeke amoo ne am na ñuy tànn ndax askan bu jigéen ji bokk mu boo tànnee jigéen ndax askanam perte nga ba sa loxo takk suuf maanaam bis dina ñëw nga yëg ne dëgg dëgg amoo jabar kon ñett ñi ku ko tànnee soxna muy alal walla askan wala taar di nga toll sa jamono joo xam ni dafay mel ni jigéen nekkul sa gannaaw dafay mel ni amoo jabar da nga yëg ne yow amoo soxna bal sax ñàkkoon ko sax moo doon tene am gi ndax naqar bi ngay dund ak jafe-jafe ci kon su ko defee ñu déglu yonent bi mu wax ñu kuy góor buy tànn soxna ban soxna la war a tànn من فضفر بذات الدين وخط تكال دي غنيال غنيال جيجن جو ام دين غنيال مانام جيجن جو ام دين فالور لا لو ني خيو لا يونت ني فخال با جيل كو يو فخال با غاني فو فك لو ني غاني رك خمال ني بري كوي سوخلا يو nga jitu ci jigen jam dine mo jar lolou moo jar nga góorgóorlu ba yow am ko yow mu ne defal loolu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tànnaloo góor ñi jigéen ju am diine ndax li tax ñuy wax sëy ci loolu rek la mën a juddoo li tax nit di dugg ci sëy soo ko xamee da nga xam ne ku am diine rek nga war a tànn soo ko tànnee da nga yëg ne am nga jabar da nga yëg ne am nga soxna waxul la nag bu mel neneen waaye lu mën a xew daal na ci diine ji nekk moom bu diine ji manqué rek wala diine amu fa lu mën a amati rek bàyyil lii la yonent bi jàngal kon képp kuy góor buy takk soxna na tànn boroom diine jigéen ju diine waaye képp kuy jigéen it déglu li la yonentu wax yonentu def na yéen kilifa yi parce que jigéen dañ koy maye moo tax foofu waxut jigéen ji tànnal def na kilifaam yi dañ ko xoolal ndax kilifa dafa am solo ci sëy moom moo war a maye waaye moo war a taxaw taxawaay boo xam ne ni doomam jim maye du fa doom du am ci sëyam lu nekk rek dana ko régler ci anam gi mu gën a rafete jigéen buy sëyi ah mu mbërëm làmb bu ñu yebal a yem mbërëm làmb foo xam ñu ko indi waaye foo ñu topp ci gannaawam di ko conseil di ko xamal te di ko xamal luy tax mu am ndam jigéen it ay kilifaam buñ ko mayee dañ ko war di xelal di ko jàppale di ko génnee ci yenn situation yoo xam ne bu du woon ñoom rek mu am jafe-jafe moo tax yonentu ne yéen kilifa yi su ngeen di may seen doom ju jigéen tànn leen góor gu mel nii mooy góor goo xam ne jikkoom doy na leen diineem doy na leen su ngeen gisee góor goo xam ne ñaari daje na ci moom may leen ko soxna bu ngeen ko defut fitna ak yàq gu mag dara xew ci kaw suuf sallallahu alayhi wa waxoon ñu ngi koy gis ba léegi jikko mooy jëflante nit mën naa am diine mën naa mën naa julli mën a woor mën a jàng alxuraan mën a def lu baax waaye jëflante mag nit ñi rafetut dafay saaga dafay dóor dafay xaste dafay tuumalaate jikko yu bon yi daal da koy def ak jigéen ci amul yërmande ci moom kooku bu diineem rafetee it jikkoom rafetut nit it jikkoom mën naa rafet mooy du def jigéen ji lenn lu ko naqari waaye nag du ko digal mu julli du ko ci mere du ko digal mu sol yére yu jot du ko ci mere bu ko neexee sax nag xaawee ku sol yére yoo xam ne yaram yëpp ngi feeñ ci bitti moom loolu déranger wu ko yoonam nekkut ci kooku dëgg-dëgg bu musalee jabaram ci safaraay àdduna it dugal na ko ci safara su gën a tàng muy safaray àllaaxira ndax dafa am loo xam ne yàllaa ko aaya jigéen kon boroom kër gu nekk sàmm la war na sàmm njabootam buñ mucc ci ñaari safara yëpp muy àddina ak àllaaxira bu ñaari yëpp mucc ñi mucc ci safaray àllaaxira sax moo gën loolu na ko nit ñi di bàyyi xel yàlla def ne musal leen seen bopp ak seen njaboot ci safara kon waroo am sa soxna bàyyi ko muy def loo xam ne nii wóor na ne bakkaar la même bu fekkee aaye ko ko daf koy indi naqar même bu fekkee dafay tax mu ne danga compliqué aaye ko ko rek ndax loolu yàllaa ko ko aaye kon bu fekkee nit ki mu ngi rafetal digganteem ak soxnaam ci wàllu àddina waaye wàllu diine moom yoonam nekku si lu soxna si def baax na kooku dama ne mu ngi musal soxnaam ci safaray àddina waaye di ko dugal ci safaray àllaaxira te booboo gën a tàng moo gën a métti buñ demee àllaaxira soxna si de dana ko bañ moo tax bu kenn nangu sa soxna sol yére yoo xam ne ni awraam yi dafay feeñ bu kenn nangu sa soxna di ñàkk jaamu boromam ci gàttal daal bu kenn nangu sa soxna di def loo xam ni lii wóor na ne lislaam daf ko aaye jigéen waaye soo gisee góor goo xam ni nag jëflanteem ak jigéen ñi rafet na mu teg si lépp loo xam ne yàlla bëgg na ko rek dana leen ko digal te góor góorlu ci bañ def ko lépp loo xam ne yàlla bañ na ko rek mu aaye leen ko te góor góorlu ci bañ bàyyi ko rafetalit digalin bi ak aayin bi may ko soxna boroom kërangoo ko loolu la yonent bi wax kon góor ñi nañ tànn jigéen ju am diine waaye jigéen ñi seeni kilifa nañ leen may góor gu am jikko ak diine parce que góor mooy kilifa moo tax ñu tàmm ci jikko ak diine suñ defee lii meññeen mu baax dana ci juddoo na alxuraan def ne suuf suuf teey mooy génnee meññeet mu teey loo ci déggee suuf su baaxut loo fa ji du meññ walla bu meññee it luy sonale rek nga cey jire da nga bay da nga def lu nek waye meñen mo du normal borom xam-xam yi dañuy wax ne jiw bu baax boko defé ci suuf su baxut ak suuf su bax nga def sa jiw bu baxut ñoyam résultat ben du ci meñ gor gi bu ku bax mo ànd ak ju normal mbaaxam du mën a feeñ ndax ci mbaaxam lañ koy sikkee lu baax la muy def pour jigéen ji loolu mooy mujj nekk sikkam ndax jamono ju yàqu lañ nekk joo xam nit ñi xamatuñ baax lu leen neex rek lañ xam xamatuñ dëgg liñ bëgg rek lañ xam góor bu baaxee boo amee soxna su baaxul mbaaxam du feeñ ndax ci mbaaxam googu ci lañ koy bonalee waaye it bu ci amee doom doom ji mën naa bañ a baax pourtant baay ji baax na waaye suuf suñ ko ji moo baaxut doom ji mën naan mel nu ne fekk ci yaay ji la ko jële kon boo amee jiw bu baax wutal suuf su baax nga ji ko fa ndax sa mbaax mën a feeñ meññet tamit man ci am muy njaboot gu barkeel waaye jigéen tamit bu dee ku baax la suuf su baax ngoo bu amee borom kër gu baaxut baaxam moom jigéen ji mën naa bañ a feeñ ndax la muy bëgg borom këram du ko bëgg baaxam googu sax borom këram mën na ko see jéppee far naka noon it su fekkee góor jigéen ji baax na waaye boroom këram baaxut doom yi muy am mën nañoo doy waar lool fekk wallaay seen yaay kër la seen yaay ku baax la mais dafa daje wutu góor gu baax moo tax doom yi baaxuñ kon ñaari yi ñoo am ñoo am résultat meññal mu baax nga ji ko suuf su baaxut suuf su baax nga ji ko ci meññal mu baaxut ñoo am résultat nga ji ko suuf su baax nga def ci meññeet bu baaxut ñooy résultat du meññ góor gu baax am jabar ju baaxut fitna rek lay jur njaboot gu ci juddoo it fitna rek lañuy doon jigéen ju baax am borom kër goo xam ne baaxut fitna rek jaboot gu ci juddoo it fitna rek la kon su ko defee lan mooy am mbaax mën a am jàmm mën a am résultat muy njaboot gu barkeel mën a am mooy nga am meññeen mu baax ji ci suuf su baax foofu de soo sonnee sa coono dana feeñ te bu ëllëgee meññeen mi dana baax xol yi danañ sedd mooy góor gu baax tànn soxna su baax loolu mooy indi jàmm ci àddina ak alaaxira loolu tax yonent ne bu ngeen defut lu mel noonu fitna dana xew ci kaw suuf yàq gu bari dana xew ci kaw suuf ndax njaboot gii di rayante ci kaw suuf si ñii di yàqante ñii di liggéeyante ñii di lorante yépp ci cosaan li ci sëyee la rek bu sëy yi baaxee ñu takk ko nañ ko war a takkee yar njaboot gi nañ leen war a yaree société bi mën na ci def dara de waaye yàgg-yàgg liggéey waa jur yi dana feeñat ndax loolu mooy garab gi garab bu baaxee meññeen mi bu normal bu yàggee meññeen mu normal ma dana ñëw ndax cosaan li moo baax kon société bu dëgg la danay def ci nit ñi dara waaye li ci gën a foor mooy waajur yi moo tax dëgg-dëgg maa ngi laay biir nit ñi bu ñu tànn soxna nañ tànn jigéen ju am diine jigéen ñi it bu ñuy tànn boroom kër dañ tànn góor goo xam ne am na jikko waaye am na diine ndax mooy tax ñu mën a mucc ci fitnaay àdduna ak ci fitnaay àllaaxira ndax sëy coono bi ci nekk yàlla rek moo ko xam loolu sax moo tax yàlla def taar ci jigéen defit ci góor luñ ko mën a bëggee ndax coono bi nekk ci sëy bu du woon li yàlla def ci jigéen gi ak ci góor gi kenn du ci dugg ndax du leen ko jaral waaye la tax ñuy mën a muñ mooy li yàlla def ci jigéen ji def ko ci góor gi moo tax ñu mën a muñ coono boobu loolu li ngeen ci déggee mooy yow góor gi li yàlla def ci yow ci taar ak lu mën a doon pour say soxna la jigéen ji taaram ak yooyu pour borom këram rek la moo tax ñu ne jigéen bu mu woon taaram lu may borom këram waaye tey jigéenu jullit ñi bu ñu solo ba pare sax da nga naan ñi xanaa ay doomi xéeféer lañ maanaam day mel ni nekkuñ doomi jullit ndax seen yaram yëpp ci bitti lay nekk. boo xoolee seeni sest ak seeni doxalin mm, danga naan ñii ana seen diine dag leen xool wala ku baax wocc nga bëgg a def ndax seen melokaan bu doy waar waaw kat koo ci dem rek nee na la la diwee sëriñam waaye melokaanam lu doy waar doon waaw moo tax euh, il faut ñu bàyyiwaat xel diine ji ak jikko yi defaraat ko surtout jigéen ñi il ñu defaraat seeni jikko defaraat seeni diine xam ne àdduna yàggut te moom moomuñ ko yàllaa ko moom kon ki moom bind ni mu bëgg ñu mel noonu rek lañ war a mel ba ñu demee suñuy xel ndax ku nekk sa xel am na lu mu rafetlu waaye bu xel yi wutee yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo mën a àtte nit ñi ak alxuraan kon nañ delluwaat ci alquran ni mu jàngalee ne jigéen ñi jurit noonu la war a mel jigéen ñi jéem a mel melokaan boobu balaa ñu sànku sëy dafa metti waaye taar bi ci nekk ak bànneex bi pour ñaar ñuy dencante rek la kon waruñ koo wan keneen ñoom ñaar ñoo ko war a warante seen biir waaye keneen yoonam nekkut ci gisoo ne xale yi jamono bi nga xam ne mënaguñoo dugg ci néegu sëy benn taar du feeñ seen yaram bi seen taarib yàlla nëbb na ko buñ demee ba jeexal ba nga xam ne nii daanaka màggat nañ mënatuñu am njaboot taar ga dafay dem mais jamono bu ñuy toll ci sëy la leen yàlla may taar loolu wax la yàlla daf la bëgg wax ne taar bii dama koo def ngir sa borom kër man laa téye kon sa borom kër moo tax ma defal la taar bi wan ko ko moom kese keneen ku dul moom bokk wane yaa ngi tooñ loo waral yàlla sant jigéen ñi ñu muuru sant góor ñi ñi gëmm seeni bët jigéen ñi it gëmm seeni bët kenn ku nekk yem ci sa borom kër la yàlla def ci yow ci taar wan ko sa borom kër yoonu keneen nekkul ci waaye jigéen sol balaa am lu ko neex rek teengal yëreem ci yaram bi yépp di marqué góor gum romb xool ko ku baax di ko xool ku bon di ko xool danañ wàccee seen yaram yi ba seeni ween di feeñ danañ dagg seen suufu tànk yi seen yeel di feeñ ñi ci gën a bon sax lu puyee feeñ jigéen gu sol daal nga ne gàcc ngaaraama léegi bareetul ndax jigéen bu soloo normal kanam gi rek moo war a feeñ ak loxo yi ba ci tënk yi waaye jigéen joo gis léegi lay feeñ ci yaram bi xam nga ne ëpp na loolu bu soloo nag yére yi wax ne mooy yu baax yi sax yooyu ci lislaam baax waxumalaat nag yëree jë ñooñ jëmono ci kon nañu muur seen awra yi parce que seen taar pour seen jëkkër la ngir seen jëkkër man leen a góor ñi it dañuy gëmm seen bët yi ndax li nekk ci ñoom pour seeni soxna la lii la yàlla santaane buñ ko defee jàppalante jàmm mën a am sëy nit ki moom kese buy dund lim def moom la concerné ëllëg yàlla du ko laaj diw du ko laaj diw du ko laaj diw waaye moom it soxlaay boppam rek doy na ko gàddu wut kenn waru dundal kenn ferey kenn waru ko bu duggee ci soxna nag yàlla dana ko laaj mbiru soxna suus noo ko yoree woon noo doon jëflanteeg moom nan nga taxawoon ci diineem est-ce que yaa ngi ko doon yar ci lislaam est-ce que est-ce que boo ci amee ñaari jabar dañ la laaj ñaar yëpp te kenn ku nekk ci ñoom dara war na la ci ci wàllu àdduna ci dund ci dëkkuwaay ci koddaay ci faj ci lu bare bare bare nga am njaboot njaboot gu ñëw rek yàlla dana laaj noo yore woon say doom dund war la ci kon dëgg-dëgg responsabilité ak coono bi ci say yàlla rek xam tool loolu la ci war a dugal nit bu dee bànneex rek lekk naa nelaw sëy xar yi sax mën nañ ko ak bëy ak mbaam yi nit ñaa ngi koy def te amuñ soxna nit ñaa ngi koy def amuñ soxna bàyyi ma yaa ngi koy def ñu amuñ ci bàkkaar kon yow gënoo waaye boo gisee yàlla tëral sëy pour ñu mën a taxawal àddina dund ci jàmm njaboot am yërmande mën a am dimbalante mën a am mbokkoo mën a am xamante mën a am waaye it ñu mën a fexe ba diine ji mën a taxaw dégg nga ñu yar njaboot goo xam ne danañ nekk ay jullit li yàlla bëgg ci kaw suuf danañ ci nekk loolu moo tax kon nag ku la mën a jàppale ci loolu nga war a tànn ndax mbir boo ci dugg dangay xool lan moo tax sëy pour njaboot ku barkeel la pour dimbalante pour jàppalante pour taxawante ci wàllu àdduna waaye it fexe ba taxaw wante ci l'islam l'islam gi dëgër diine ji mel ni mu war mel nit ñi di ko appliquer doon moo tax nit ñi dugg si sëy moo tax ñu mën a muñ coono bi ci nekk nak ngay bëggee nag ku la jàppale ci diine di tànn jigéen joo xam ne faarewu diine amul ci dara yow bëggoo ku la jàppale ci diine nak ngay bëggee ku la jàppale ci ay valeur ci ay jikku ci ay mbir yu baax jigéen di nga tànn dara ci dara ci yu mel noonu nekkut ci moom loolu waral ku xam lan mooy sëy jigéen ju am diine rek lay tànn ndax lu ko jàppale ci diineem lay wut waaw loolu mooy intérêt bi tax nit war a dugg sëy lu la jàppale ci taxawal diine ci taxawal diine ci liggéeyal ko lu la jàppale ci njaboot gu barkeel njaboot gu respecte diine te boobu foo nga am yaay joo xam ne xam na diine moom it yaru na ci pour mu mën a yar njabootam ci loolu waaw bu defee loolu danaa leen ko bàyyiloo xel mooy point bu njëkk bi may wax muy yonentu nee na góor ñi dañu wul borom diine kilifa yi nañ may seen doom yi jigéen yi góor gu rafet jikko rafet jëflante ba pare am diine su loolu amul nag yàqu rek mooy am ci kaw suuf te su mooy meññet muñ ji ci suuf su baaxut wala suuf su baax waaye meññet mi baaxut lañ fa ji baaxut jiw yi baaxut lay bëgg wax foofu meññet du fa am meññet suuf su baaxut suuf su baax jiw yi baaxut meññet du am moo tax fitna yi bari ci kaw suuf ndax góor ñi tànnatuñ borom diine jigéen ñi xoolatuñ jikko ak diine waaye matière àddina lañuy ñuy xool moo tax déception yi ak problème yi ak jafe-jafe yi bari waaw ñaar ñu warul ànd bu ñu àndee rek cool yi bari waaye ñaar ñu war a ànd bu ñuy ànd biir bi du am kon nee nañ nañuy boole ñu war a ànd ñuy ànd ci néegu sëy yi waaye nañ yar xale yi ci lislaam gannaaw gu sëy bi amee nag ngeen tànn ko ni ngeen ko war a tànnee pour sëy bi continuer faw ñaar yi am mooy mbëgg mbëggeel gu dëggu ak confiance confiance mooy xel mu dal loolu rek mooy confiance ñaari bu amut ak lu mën a xew sëy ba du dem waaw kon boo gisee koo xam ne nii lañ la tànnaloo gis nga ko ci moom te bëggoo ko xaaral ba gis keneen ku mel noonu te bëgg ko ndax jigéen ñi góor ñi dañoo mel ni ay oh, kii rek waxuma noonu noonu lañ mel ci wàllu ki valeur ñu ëpp valeur lu ne waaye comme oto rek boo taxawoon di xaar ab tata bu benn jàllee it beneen a ngi ñëw kon boo gisee boo xam ni doyit la bàyyil mu dem bu nga gis bu la doy nga dugg ca ndax bu benn jàllee it beneen a ngi ñëw dara jarul topp ci gannaaw dara di daw ndax loo ñàkkee it lu mel noonu wala lu ko gën mu ngi ci kanam àdduna noonu la lépp demee yàlla rek la nit mën a ñàkk biram dootu baaxati waaye leneen lu dul yàlla boo ko ñàkkee boo gëmee yàlla yàlla wutalal la lu gën kon boo gisee koo xam ne nii dëgg la am na diine waaye mbëggeel ga des na arrêteel parce que boo ci duggee sëy ba du dem su fekkee mbëggeel ga dëggu na it kenn ku nekk si ñaar na góor góor góorgóorlu ba moroomam xelam dal lu bëgg gi foor foor bu xeli dalul rek sëy bi du dem moo tax jigéen ñi ak góor ñi bàyyi xel na sëy du mbëggeel ñu bëri bu ñu dugg ci commencement bi dañ naan kii dama koo bëgg waaye ngaa dalal xelam laajteel loolu ba pare te pour nga dalal xel nit foo ngeen bokk jikko lim gëm mu di ko gis ngeen di jàppalante su xelam dana dal ndax yéen bokk fu ngeen jëm waaye ñaar ñoo xam ne bokkuñ jikko mu ngi mel ni ñaar ñu ànd kii jëm penku kii jëm xarf ñu ne nañ ànd parce que bëggante nañ bëgguñoo tàqali ko ki jëm penku dana xëcc ki jëm xarfu bañ moom it xëcc si xëccante lañuy ñuy doon la ñuy dëkk bu yàggee mu sàppi leen tàqali ko force mu wala boobu foofu kenn bàyyi jikkoom fekki moroomam maanaam ki jëm penku foo mu bàyyi fekk ki jëm xarfu ñu ànd mën a ànd ci jàmm wala ki jëm xarfu bàyyi fekk ki jëm penku pour ñu mën a ànd ci jàmm bu loolu amul nag coonaay bëri waaye ànd mënu fa loolu mooy ñaar ñu ànd te seen xel yi darut parce que kii li muy bëgg ak ni mu bëgg a gis gisu ko kee it noonu bokku leen jikko mënu leen ànd coolee bari rek xëccante bi bëri rek kii ne nii la kii ne nii la kii ne fii lañ jëm kii ne fee lañ jëm da sonn rek kon bëgg moo njëkk waaye bëgg rek doyut faw xel yi dal pour sëy bi mën a dox pour ngeen mën a nekk ci jàmm su ko defee lii maa ngi koy bàyyiloo xel ñëpp gannaaw boo xamee ne bëgg nga xoolal ndax man ngeen ànd wala déet bokk ngeen jikko wala déet soo gisee ne loolu amut bu ci dugg ndax boo ci duggee it coono bu bëri rekk cee juddoo ba mu mujj tas wala bu tasu bi résultat bu baax du ci juddoo ndax bokku leen fu ngeen jëm da ngeen tardalante xëccante kenn du dem da ngeen boole coono ak tardé waaye meññeen bu baax du ci juddoo mooy li ma leen wax rek kii jëm penku kii jëm xarf ñu ne nañ ànd du yomb kon ñaari poto yi ñooy téye sëy mbëggeel gu dëggu ak xel mu dal fu am jàmm am fa fu am résultat am fa loolu maa ngi koy bàyyiloo xel ñëpp ku nekk balaa ngaa dugg sëy gannaaw boo xawlee diine xoolal ndax bëgg nga su bëgg am na xoolal ndax kii yaakaar nga ne man ngeen ànd wala déet maanaam ndax bokk ngeen jikko bokk ngeen ay gëm-gëm ndax ñu bokk jikko bokk gëm-gëm rek a mën a ànd waaye nga gëm lii kii gëm sa ba benn nga fekk si ko wala mu fekk si la bu dul loolu bari mais du ngeen mën nekk ci jàmm kon ñaari ñooy tee mbëggeel gu dëggu ak xel mu dal xel mu dal nag pour mu am faw ñeent yi dajee ci bëgg moom yàllaa koy def ci nit du looy forcer yàlla mooy xool ku ko neex mu def ko ci xool ku ko neex kooku mbiru yàlla la waaye xel mu dal moom boo bëggee nit ki am ko ci yow faw ñeent yi dajee ci kon képp kuy dugg ci néegu sëy bu bëggee ka muy sëyal na bàyyi xel ci ñeent yi ma ko wax pour sëy bi mën a continuer mooy na respecté yii pour ka muy nekk ak muy borom këram la wala soxnaam la xelam mën a dal benn mooy bu ko teg lum attanut nit mën na laa bëgg waaye soo ko tegee lum attanut xelam dootu dalati sëy boobu du continuer teg lum attanut nag ay façon la léeg-léegi ci fere la nga teg ko dépasse boo xam ne wóor na la mënu ko teg dépasse boo mënul tax na yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak coow yu bari yu ko soxnaam tegoon ba mu tax na mu génn këram weer door delluwaat ci soxnaam ndax jafe-jafe yi ñu ko doon teg attanatu ko kon góor boo ko tegee lu mu rek jàmm du am seen diggante ndax xelam dootu darati xelam dootu dara ndax pois bu mu yenu àttanu ko yu bari du ko tal li muy tal mooy ni muy def ba teggi pois bi ci kawam te loolu mën naa andi ay jeexi jaaxa mën naa tax la muy def lu ci nekk en l'aise mën naa taxit yow it doo da jàpp ne sax su borom kër bëggul la fekk walaay bëgg na la mais li nga ko teg la àttanut moo tax nekkut en l'aise ak yow kon. jigéen juy seeg nit na fexe bu mu ko teg lu mu àttanut ci ay fere na koy laaj loo xam ne ni boroom kër gi man na ko ndax nit ñi yemuñ doole ñii dañu am ñiy ñàkk kenn ku nekk danga war a muñ li la yàlla jox ba sa aye ñëw ba sa bis ñëw waaye bul xool keneen ki nga xam ne yàlla dafa dogal borom këram am lu bari te yow sa borom kër amut nga ne lu kooku li muy dund na nga ko yónn déedéet mu ñëw rek ci li la yàlla jox sa bisa ngi ñëw amaana yéexi gi la yàlla yéexi ubbil moo gën foofu de nga yàkkamti gi yàlla yàkkamti ci ñoom ubbil leen tey ndax suba mën naa am yaay mujjee mbir yi ñoom ñu mujjee ci nekk yàlla moom nu ni lay mayee lam la dencal mën naa gën foofu lam leen jox kon muñal li sa borom kër am rek bokk koog moom te daral xelam jigéeni saxaaba yi bu seen borom kër yi daan génn xam nga lu ñu ko daan wax diw ragalal yàlla ci ñun bu ñu indil mukk xalal ju xaraam li ngay indi xoolal foo ko jëlee ndax ñun safaraay allah àddina moo ñu gënal safaraay àllaaxira maanaam ñu dund ci ñàkk gi te muñ moo ñu a ñuy dundee lu xaraam ba dugg safara ñii ñoo doon dimbale seeni i borom kër duñ leen teg pression bu ñu wutee wutin wu xaraam di dugg ci lu leen indil ay jafe-jafe ba ay problème di leen fekk si di leen ci fekk mu wóor leen lii lépp seen i borom kër moo leen ko te seen soxna yi ñoo leen ko teg su boobaa loolu mën naa naqadil sëy mën naa demee ba tas ko bu ko teg lu mu àttanul ci ay coow ak ay wax ak ay fitna. góor boo nekkee moom dangay ngay dalal ñu bari danañ koy wax góor ak xale ñoo yem ko ko nax moom ko waaye dëgg la waaw du xale nag ci xel waaye nag boo naxanteek moom rek ni ngay naxanteeg xale rek bu yàggee nga mën a def ak moom kon bu ko rey ak ay coow ak ay wax ndax am na ci ñoo xam ne ni att nuñ coow lu bari att nuñ ay wax ju bëri ak ay problème yu bari soo amee rek dootuñ nekkati en l'aise ak kale ni indil coola tegloo at not mën naa nekk ci fere mën naa nekk ci ay wax yu bari ak ay coo yu bari ak fitna coo xam ne nit ki day tax xelam dootu dalati ci kim nekkal loolu mën naa tasab sëy waaw góor boo nekk moom bàyyi ko ci lam bëgg su dee lu baax la nga dimbali ko ca jàppale ko ci dalal xelam soo ko fekkee ak ay xaritam bu bu ko jéem a séparé ak ay xaritam ndax bu la dégloo tey it bu subaa mën na laa bañ a déglu xelam it day jig sàkk lu tax nga bëgg ko séparé ak nit ñi lu tax nga koy wax lu ñaaw ci doomu aadama yi lu tax nga koy euh, moom problème yëpp daaw ko dund nga ñëw rek commencé ko indil ay jiixi jaaxas ci xelam ak ay problème am loolu bu yàggee mën naa tas sëy wala mu naqadil ko ñam am ak jàmm fexeel boo ñëwee nga nekk puso buy gën di ñaw waaye bul xotti ñam amoon ak jafe-jafe sax fexeel boo boo ñëwee la ca xotteekoon nga nekk puso buy ñaw buy defar mu xam ne sama soxna de ku baax la kuy defar la waaye du kuy yàq del dalal xelam waaye bu ko indil stress bu ko wax loo xam ne dafay tax mu jaxasoo dafay tax mu am na dafay tax dootu wóolooti yenn doomu aadama yi ak yooyu yooyu boo ko indilee nit ki rek bu yàggee xelam du wax dara di ci yaw yonentu daan na wax ne kenn wax lu ñaaw ci doomu aadama na dafa bëgg bu génn xolam mucc kon day dalal sa xelu borom kër fexe ba wàññil ko problème waaye bu ko yokkal fexel ba rafetal digganteem ak nit ñi waaye bul ñaawal bul ñagasal moom la xakim ba wax mu ne jigéen dafa war a mel ni suukar suukar mën naa fekk kafe gu weex mu dugg ci ñu ne kafe gee neex ataaya bu tàng kenn mënu koo naan mu dugg ci ñëpp soxla koo naan maanaam da ngay fexe sa boroom kër nga di ko suturaal ba ñëpp naw ko te it nga dimbali ko ci àddinaam teg ko poids bu mu àttan ku mel nii rek say boobu am ngeen benn ponk ci tax xel mu dal mën am موي يعني سترال سبورم كير فخبا دال القلم تي تگو كو لين لو خم اتنو كو مو خم تي فتنه لا ولا تي والو فر لا تگو كو لي مي بونك بو نيك بي غوريد نون لا il faut mu fexé ba soxnaam bu mu ko teg lu mu attanut ñaareel ba bu mu ko son sonal ci ay musiba ak ay jafe-jafe yoo xam ni attanu ko kenn ku nekk ci yéen ñaar daal woo tegu sa morom loo attanut benn ponk am na ci luy tax xel dal ñaareel ba ci lay dalal xel mooy bul fen nit soo ko waxee lu du dëgg jamono dana dem boon ko ne ko li nga waxoon du dëgg day tax loo ko waxati du dangay nekk ci dëgg sax mu yaakaar waxoo dëgg fekk yaa ko yaa ko que yaa koy wax lu dëgg ba mënatul laa gëm kon ku bëgg say baax bul fen ki nga nekkat ak de ko wax dëgg ak lu mu métti métti am na dëgg yoo xam ne boo ko waxee nag mën naa jur tension mën na la cee mere waaye nag yokk nga confiance sa digganteem ak moom ndax lu mën a xew dana xam ne nag sama soxna de ku dëggu la lu mën a xew dëgg rek lay wax dana la mere tey mer ma jeex mu naw la nga sori ci xolam waaw boo ko fenee nag mën naa andi jàmm mu fonk la waaye bisi ngi ñëw bu yégée ni ay fen la woon confiance bi amoon ci yow yëpp wàññeeku wala mu dañ kon wax dëgg dana indi mer tey waaye nag dana la def ngay nit ku am valeur nit ku kawe ku foor ci xolu ki nga ko wax ndax day xam ne ku dëggu nga fen mën na andi mbëggeel tey waaye jur mbañeel suba wala boog ñàkk confiance wala boo nga wàcc ci bëtu nit ki wàcc ci xolam kon bu leen fenente da leen waxante dëgg ci biir néegu sëy yi ak lu ma la xew loolu mooy ñaareelu ponk bi bu njëkk bi mooy bu kenn teg moroom lu mu àttanul ci fitna walla ci fere ñaareel bi mooy bu kenn fen moroom ndax fen day waral ñàkk confiance te ñàkk confiance bu amee rek réeroo am réeroo boobu nag sëy mën na ci tase wala mu naqadee ci ñetteel bi mooy ku nekk na tal moromam pression yi lu mu bëri bari parce que àdduna dafa bëri jafe-jafe léeg-léeg sa xol du neex léeg-léeg nga am ay jafe-jafe léeg-léeg nga am ay nangam pression yi lu mu bari bëri bëri rek na nga tal sa morom jox ko temps jox ko waxtu di nekk ak moom waaw nit nag ku bëgg a samp teraanga mënul am waxtu wu yaatu mënul talit njabootam rek ndax dafa bëgg a yegg fu fenn te xeg ñu mel noonu foo ñu comprendre lante ku nekk comprendre sa morom jàppalante waaye lañ am ci waxtoo ko néew nañ ko joxante waaw jigéen buy sëy dafay tal jërëb borom këram ci toppatoo lekkam naanam soloom fajoom wér-gi-yaramam noflaay yaramam ba borom kër gi xam ne dëgg dëgg sama soxna moom tal na ma loolu mooy ne dafay dafay dafay dëgëral sëy nga tal sa borom kër ci lépp lu koy indil jàmm rek yaa ba ci ay problème sax danga nga ko yittewoo waaw mu xam ne yow mii kat bëgg nga ko te tal nga ko sax doo ko yàqal waaye nit boo gisee ne taloo ko wala ay mbiram intéressé wul la yow daal na nga seq ak moom la ngay seq ak moom su ngeen paree pare ngeen ci. lekkam ak naanam ak wér-gi-yaram ak bu sonnee sax doo ko bësal yaramam doo ko toppatoo ah bu yàggee loolu day indi problème ji góor it noonu bu dee talul borom soxnaam ndax jigéen la mu war a defal borom këram rek loolu la ko borom këram war a defal loolu la alquran wax wala hunna mislu allazi alayhinna bil jigéen ñi la leen war rek lañ leen war a defal kon it sa soxna danga ko war di tal ci bu solo yére nga ne ko rafet la waaw loolu da koy encourager wan ko yit ne ko bëgg nga ko ay naqaram nga def ko muy sa naqar bu nekkee si jafe-jafe nga nekk ci wetam ci taxawu ko ci defal ko ci xelal ko ci encourager ko avenir am yitteel la nga di ci waxtaan moom di ko ci jàppale di ko ci taxaw di ko ci dimbale di ko xelal comme comme waajuram comme xaritam comme magam comme soppeem comme ba taxaw ko nag taxawaayu boroom kër ci lépp loo xam ne daf koy bégal rek yooyu yaa ngi ci bu fekkee xaraamut nii soo ko talee nit kay dana am xel mu dal ci yow waaye nit bu nekk nga yow gis ne taloo ko xelam du dal ndax danaan fi ma dugg mbaa ëllëg du fi am jafe-jafe mbaa nangam ak nangam du ma fekk mbaa nangam ak nangam du fekk loolu mën naa tasab tasab sëy kon jigéen dafay tal borom këram borom kër dafay tal soxnaam waxuma nag ngeen nekk ci eh, eh, ci waxtaan ak nangam ba liggéeyatu leen jëmatu leen fenn yéen moom bu yàggee kenn si yéen du mën a tarati ndax àddinaa leen teg ñàkk ak fitna goo xam ne du ngeen ko attan waaye nag bu fekkee yéen ci loo xam ni seen avenir lay tabax dimbalante leen ci loolu parce que loolu ci tal nit ki la bokk tal nit ki du mooy nga jox ko mu lekk waaye nga mabbu avenir <laughs> am na ñoo xam ne nga dimbali leen seen avenir mu leen gënal nga toggal leen lekk gi gën a neex bu fekkee daf leen indi lu yàq seen avenir parce que àddina nag foog nga sacrifice wu sonn ab digg pour mujj ga mën a neex yonentu sax njëlbéenam mook saxaaba mi dem nañ bay lekk ay xob sallallahu alayhi wa saxaaba yi dem nañ bay lekk ay xob Abu Hurayra nee na daan na xiif ba tëdd nit ñi bu ñëwee dañ yaakaar ne dof la di ko faj nit ñi fajee dof fekk xiif rek ko jàpp waaye dañ ko mun ba yegg si fi ñu yegg si ñuy sëy dina am yoo xam ni coono boo xam ni du coonaab sàggan waaye coonaab bëgg taxa tabax avenir loolu foo ñu muñ lante ko waaye la ma bëgg wax mooy temps bañ am ko néew dañ ko joxante nañ yégante kenn ku nekk yég ne sama morom de ah sama avenir intéressé na ko sama jàmm intéressé na ko bàyyiwul lenn lu may may noflaay wala lu muy andil mbégte lu mooy ne mu ngi cee dox waaw waaye man de sama borom kër moom dafa naqari affaire nga bàyyandiko ni ngay gën di bàyyandikoo rek yaa ngi koy gën di sori sama soxna nangam nga bàyyandiku noo gën di bàyyandikoo rek seen diggante ngi gën di sori wante seytaanee ngi gën di am doole seen diggante bu yàggee si tas la jëm kon ñuy sëy dañuy talante pour xel mu dal mën a am la ci mujj nag mooy buumu sëy bi seen diggante a nekk priorité na leen gënal lu mu mën a doon lépp loo xam ne gis nga ne menace la ci diggante bi rek na ngeen ko ba ndax diggante bi des waaye bu leen sàgg ne diggante bi ndax sàmm dara lu may loo xam ni nag mbiru diine la loolu mooy lu mujj te loolu rek boo ci bëggee boo ko bëggee appliquer dangay xool lu naqali sa borom kër te nag am na ci dura nga bàyyi ko ndax garde seen diggante waaye wóor na li neexut sa borom kër nga nekk ci moom xam na ne. yaa ngi ci lii day tax du am ci yow confiance ndax loolu boo cee nekk da ngay nëbbatu ndax xam nga ne bu ko yëgee mu am pro sëy bi am problème moom it saa yu yëgee ne yaa ngi ci loolu di ko nëbbatu day jàpp ne amagul jabar xelam du dal kon lu mu mën a doon moo xam sa xarit la ak kum mën a doon su fekkee la ngay jëflante moom neexu sa borom kër boo bëggee sëy bi ko ne bàyyi ko boo ci nekkee nit ki xelam du dal ci yow xelam du dal ci yow sacrifié wul lépp ndax garde sëy bi ndax ñaar ñuy sëy gannaaw bu ñu bëggantee bëgg jàppalante lépp lu ñàkk pour seen diggante boobu rek mën nañ ko tabaxaat ndax yitte mën naa def lu ne kon buñ la tànnaloon bu ñaari situation taxawee ñaar yëpp bëggoo ci am jafe-jafe waaye foofu benn am jafe-jafe na nekk lu ne ba mu des néegu sëy bi na nga sànni lu nekk ngir garder sa sëy waaw parce que si jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit tukki na dëkk ci kaw ak jabaram waaye juru soxna si dëkk ci suuf mu ne sa soxna mu ne soxna si bul wàcc soxna si pour garder sëyam tax na wàccut bàyyam feebar waaye taxul mu wàcc mu ne mu yónnee ci yonent bi ne sama borom kër dana bu ma wàcc te sama bàyyi dafa feebar ndax mën naa wàcc mu ne ko déedéet toppal sa borom kër baayam génn àddina mu ne sama borom kër def na ma bul wàcc sama baay génn àddina ndax mën naa wàcc mu ne ko déedéet toppal sa borom kër ñi denc baayam yonent yónnee ci moom na ko yàlla jéggal na sa baay jéggal la ndax topp gi nga topp sa borom kër bu wàccoon rek danger la ci seen néegu sëy ndax borom kër gi xelam dootu dalati ndax danaan jabaram déggalu ko daf koy digal du ko def mu tere ko du ko bàyyi waaye moom dafa préféré bañ a seeti baayam bañ a teew ci dëju baayam sax ndax garder diggante bi garde confiance ci borom këram maanaam garder confiance ak jiital sëy bi ni ngeen ko defee mooy lañ la diggal defal lañ la tere bàyyi ko bu la ci ñëpp di mere it yow ci jaamu yàlla nga nekk te su boobaa ña la mere woon dañ la mujj bëggaat ndax dëgg gi nga nekk. waaw kon fexeel ñàkk lépp pour garder sa sëy su boobaa lépp loo ñàkkoon da ko amaat waaye lépp looy dabu ba sacrifier sa sëy rek loolu mën naa andi jafe-jafe ci néegu sëy yi sëy bi na nekk priorité na nekk priorité lu taxaw sëy taxaw nga xam ne ñaari benn dana ci am jafe-jafe tànnal beneen ba am jafe-jafe sëy ba des ñeent yi fu mu dajee ko xel mu dal am ñeent yi nag moo yombul kuy sëy ku ne na fexe ñeent yi am mooy sa soxna ak sa wala sa borom kër bu ko teg lum àttanut moo xam ci xelam la walla ci yaramam la walla ci liggéeyam la wala ci alalam la wala ci njabootam la bu ko teg mukk lum àttanut ñaareel ba bul ko mos a fen lu mu métti métti wax ko lay dëgg ndax lu dëgg tabax tabax ba yàgg ñetteel ba mooy say pression àdduna lu mu bari bari na nga ko tal la koy bégal na ci nekk na ko jox temps waaye wul ne sama borom kër dafa jafe rek tax talatoo ko danga koy ñàkk danga koy sori boo ko tarul rek xelam yeneen nekk ci ñeenteel ba mooy buumu sëy bi na la gën a lépp pareel pour ñàkk lépp ndax sa téye sa sëy waaye bul sàgganee sa sëy ndax dara ak lu mën a doon lépp loo ñàkk nag ngir garder sa sëy te yàlla tax yàlla dana la ko joxaat ndax ci lu baax nga nekk ci jàmm yàlla nga nekk ñeent yi fu mu am xel mu dal am kon gannaaw bu bëgg amee bu kenn teg sa moroom nu mu bu kenn fen sa morom na ngeen talante talante mooy kenn ku nekk rek lay bëggal sa morom nanga ko tal nanga ca nekk nekk sa yitte waaye sëy bi na nekk priorité buumu sëy bi na nga ñàkk lépp ndax garde sa sëy boo amoon loo bëgg bëgg koo garde bëgg koo ñàkk mu gënal la lépp lépp luy tax loolu nga mën koo téere danga ca nekk doo ko sàgg ne waaye ku sa buumu sëy gënal danga fonk sa bëkk sa borom kër fonkaale ay mbokkam xaritoog ay xaritam ñi nga xam ne ni gis nga ne meluñ nu normal danga ci def nànk def ci attention danga ko suturaal doo ko jëw doo ko sosal ndax yooyu yëpp xam nga ne mën na ko yàq kon ku bëgg garder sa sëy lépp loo xam ne gis nga dana ci dimbali rek danga cee nekk yii ku ko def ci sëy yàlla dimbali la gannaaw bu ngeen tànnee diine yii mooy ponk yi téye sëy mooy mbëggeel gu dëggu ak xel mu dal ci ñaari côté yëpp xel mu dal bu kenn teg moromam mu artanut bu kenn fen moromam kenn ku nekk na tal moromam waaye it sëy bi na nekk seen priorité maam na nekk leen gën a yitteel lépp luy tax mu gën a dëgër rek kenn ku nekk ci ñoom ñaar na ci nekk lépp loo gis ne menace la ci sëy bi mën na koo yàq ngeen ko daw ci teel dégg nga bu ñàkk jotee ñàkkal lu ne waaye sa sa sa buumu sëy moom boo ko ñàkk yii de ku ci nekk yàlla dana dimbali xel dana dal sëy bi dana kon na njaboot gu baax dana ci juddoo waaw waaye bu ci manqué rek sëy am problème sëy am problème yu ci bari rek benn ci am na ci benn kenn teg na moromam lu mu àttana tut ba mun tut dem wala kenn fenn moromam ba confiance wàññeeku wala kenn ci ñoom ñaar talatut moromam nu mu ko war a tale ba xel yi commencé sikk sàkk wala boog sàgganee neen seen sëy ndax garde yeneen i affaire léegi nag cooyu sëy yu bari boo xoolee du mooy vrai problème bi yooyu ci problème bi la juddoo boo ko réglé te réglé ko vrai problème yi tamit dara du baaxaat dafa am problème yoo xam ne comme garab gu sax ci barab ba saxee meññi meññet mu salte léegi nag meññet mi di wadd ci barab ba ak xob yi nit ñi di tawat di naqarlu lu ñuy naqarlu meññeen mi wadd ak xob yi su ko defee nag ñu daal di jël meññeen mi wadd yëpp bale ko ba mu set yaakaar ne ñu ngi ci jàmm te ba fa garab dafay waddaat rek meññeen mi day waddaat rek ñu tawataat bu yàggee ñu ba barab ba wala ñu yéeg ci kaw garab gi dagg meññeen mi ba mu jeex tàkk daal di bale li nekkoon ci kaw suuf dana yéex a ñëwaat de parce que balaa moo ñëwaat foo mu meññewaat waaye ala kulli xaalin bis dina jot rek meññin mi ñëwaat bu ko defee barab ba saltewaat nit ñi tawataat xol yi tàngaat li ma bëgg wax foofu mooy problème yi ci néegu sëy yii moo koy jur da ngay fexe nag yii moo wax dajee ci sëy bi ñàkk diine dana jur problème ñàkk mbëggeel dana jur problème yenn loo attanut mën naa jur problème fen mën naa jur problème ñàkk tal ki nga nekk ak mën naa jur problème sàgganee sa buumu sëy ndax garder leneen moo xam relation la moo xam mbiri àddina la mën naa jur problème yi ngeen fexe mu dañ waaye su fekkee kii dafa ñëw wax la dara nga ne la ma wax nangam nangam wax ji du problème bi fen gi nga ko fen ba amatul ci yow confiance moko ko merloo ba wax ñu bari ay détails la ñi netti ci néegu sëy ne yi mo waral problème fekk du yoy nit man nga ko wax wax ju dul dëgg rek mu ñëw nekk ak yow tayal nga ne yëguma fekk xel mi ci boppam dara tut motax mo tu nekk à l'aise wala bok mu xëy xëy rek xelam nekk ci leneen mu wutaat yeneen relation nga ne kii yëguma bëgguma fekk garab gi sax meññ loolu mooy ñàkk tal gi nga ko ñàkk tal wala mu toog rek wan la gannaaw ngay tawar wan gannaaw gi fekk wan gannaaw gi du problème mooy dangaa gënale leneen ci néegu sëy bi maanaam dangaa pare pour am leneen loolu jaral la nga sàgg ne sa néegu sëy jël dara teg ko sa kaw ne sa kaw bu mu sëy loolu moo la andil problème bi maanaam nit ñi dañuy dañuy jël problème sëy teg ko ci détails yi nga xam ne dafa juddoo ci problème yi nga xam ne ñooy cosaan le bàyyi nag garab ka dafa am ñaar yoo xam ne dañoo takkoo garab ak mbon fu mu sax rek meññetam mbon wàcc fa garab bu ñàkk confiance mooy ñàkk xel mu dal ci biir néegu sëy bu juddoo rek problème yu bari mën naa judd ngeen lii la kii lii la def ak kii lii la wax ak kaa la def fekk yooyu du problème bi yooyu mënul ñàkk génn ndax xel a dara tut te nit nit rek la problème ba mooy ñàkk confiance ba léegi nag bu ngeen bëggee régler problème mooy ni ngeen def ba confiance amaat nu ngeen def ba dal amaat loolooy régler problème mu sëy yi gannaaw bëgg nan ngeen def ba xel yi dal te boo bëggee xel mi dal li tax nit ki xelam dal woon yëpp da nga ko baax waaw waaye boo ne daf maa mere li ma mere mooy problème bi léegi lu tax mu mere la daf maa wax nangam ak nangam nangam lu tax mu wax la ko dafa am ak man jafe-jafe nangam nangam lu tax mu am ak yow jafe-jafe boobu yooyu ngeen di réglé te yooyu su ngeen defee lii may wax rek mu réglé wu kon yi mooy tee sëy gannaaw bu ngeen tànnee diine bu ngeen bëggee nag mën a appliquer loolu ndax mbaax kat dafa am fu ñu ko mën a appliquer. waaye am na foo xam ne loo baax baax mbaax ka du feeñ yonentu lu mu bëri bëri yërmande yërmandeem feeñut ci waa Quraysh ndax xeex na ak ñoom deret ji tuuru na ndax mun ko faa feeñal waaye ba mu dajeeg ñu baax xam nañ ne kii ku bëri yërmande la kon yii mooy téye sëy bàyyi leen ko xel gannaaw diine ji bëgg fexe xel yi dal xel mu dal nag bul teg nit ki lu mu àttanut bu ko teg xalaat mu àttanut bu ko teg lenn mu àttanut bu ko fen nanga ko tal tal lépp lu taq ci moom tal ay projet tal jàmmam pareel pour ñàkk àddina lépp ndax garde ko moom ak lum foor foor pareel pour ñàkk loolu ndax garde ko ne ko ñëpp xam ci yow xam ne yow sa jëkkër la gënal lu ne sa buumu sëy moo la gënal lu ne doo ko sàggaree mukk lépp lu koy dëgëral nga nekk ca lu koy delloo gannaaw nga bàyyi ko nga xam ne sa diggante sa borom kër daara xajut ci nit ñi sax dañ cee ragal a dugg ndax xam nañ ne ku ci dugg des ci soo boobaa dañ lay xamee jikko boobu ñu nangul la ko kenn dootu la ci mereti waaye boo miinalee nit ñi naa fekk di wax luy yàq sa néegu sëy wala luy ñaaw si sa borom kër xëy xëy nar koo ba mën nañ laa mere ñoom yow it boo ragalee ñu mere la nga continuer ak ñoom loolu bu yàggee nag nga ñàkk sa sëy maa ngi bàyyiloo xel ñëpp euh, di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waxtaan loon boo xam ne naa ko waxtaan ci biir néegu sëy yi di ñaan yàlla sëy yi yëpp yàlla na continuer te yàlla na barkeel yi takkoo gut yàlla na ko yàlla takk te def ci jàmm yàlla na yàlla sàmm ñëpp ñu bëgg borom kër yàlla na leen ko yàlla may ñu bëgg ay soxna yàlla na leen yàlla may soxna yu baax te ñoom ñëpp yàlla barkeel seen sëy sàmm ko lépp luy tax sëy bi mën a màgg mën a continuer yàlla ko yàlla def seen diggante waxtaan yii nag waxtaan la yoo xam ne laayante bi rek la ndax sëy bu baaxee lépp baax hada in uridu lil islam astantu ma tawfiqi illa billah عليه توكلت wa ونيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته